شهر وفي سفر حماني على ماه مع الحبس والسفر فلاهي بكوني عبد ربي خديمه عجيب به لي جاد مغن عن النفر رديت عن المولى وعن خير خلقه فقي قلن يتوي سنسرين bile way yuy jariñ di ci sàkkuy ngërëm sëtu cheikh ibra la te ku gëm bàmba la sang bi gaynde la dama lay wax turam moo di sëñ cheikh ndigal mi saxoo jëfu ndigal moo jar di way di ci sàkkuy ngërëm ku di bay fal war nga koroy moo di gor tadi góor moo di mbër mi fi semmal kemam mani sëñ seex ndigal dafa jub tey jubal aka dëgguy dëggal di ku feese xikam ku ko xam-xam ni kat dadi dëggi murit mani baay faal layit gore lool feese jom seex moo di tap ku ko andil sa ndàpp mu du yàlla nga fopp di la wan am mbégam ku fi sëñ seex ndigal di sa soppee jugal ma ni yow fet tasul ba ma lim ay ndamam ku fi sëñ seex ndigal di sa soppee jugal ma ni yow kon dañu góorgóorlu bu baax li gën a neex ci bi nga kilifa gu mag kilifa ak nga am kilifa gu neex a tiitaroo. ak nga am kilifa goo xam ne fu mu rek ñu ne kii la nga sagoo. te foo ko ñu fonk la. te fu la fekk ñu weg la. te liggéey boo dégg ci yoonu Serigne Touba ak maam Serap Fall kenn mënu ko ci. kooku boo ko amee nag faal da ngeen koy jàpp ndax moom nag munu ko waxal boppam waaye yoon wi ñu ne mun nga ko cee mag de waaye man ko ci bu sedd lool selwise suñu borom mit mën a seere ànd boobu ndax yàlla moom du nit doomu aadama nag matul te doomu aadama dafa lëndëm mais Cheikh Modou Moustapha borom mi ngërëm la ku sell la te war naa ci Cheikh Ibrahima Fall nii fois nag moom di ñeent ana wala nga yërëmaat xoolal sama faal. Fall Baye daa toog fii njabootam wër ko boo déggee tey ñu naan kalafaal kalafaal kalafaal ma bugg leen ko leeralal mas ko junj daa toog fii njabootam wër ko muy waxtaan ak ñoom. bàyyi gi ci neneen bis bu ngeen xëyee ci bisi siège bii ma toog boobu sëñ Moussa Kala mu ngi toog chaise bi ma toog ngeen gis keneen ku ci toog du mag bàyyi la Fall loolu la sëñ Modou Moussa Fall kala jàppoon moo tax yow du maam Seraan Fall bi kenn du te dina fii taat sëñ Seraan Ndigal Fall di woote ay nag yu mu war a yóbbu ko waxee ca uh, Taïf bu fekkee lii may wax di ñoom sama nopp bu fekkee amul yàlla bu ma fekk sëñ Seraan Ndigal oo ko ne ko kaay Baye Diagne de génn na ah, yow yaa ngi tawal rek bu ko bàyyi sa mu ne ma sa ñoroon ma sama caay ma ñor caay mu ne mu ne ah sëñ ne nañ toog gis nga nag yooyu muy laaj mu ngi tëdd fii wóor na Cheikh Moudou Moustapha Fall barki sëriñ Cheikh Fall Baye bu góor sa baay moo njëkk a joxe nag kon kooku kat mu ngi wane yoon kii la fi bàyyi rek kii kenn ku ne gis nga li li ñëw fii yëpp fii la sa baay ñëw toog kon nañuy roy ci moom baayam ñëw na fii toog mu yëkkati ay xéewalam ak toolam jox baay buy sant. te sëñ bi da cee am na mu ci doon waatal boppam loo xamante ne sii da koo dimbalee baay daan ci liggéey bi ndax rakkam yu baax yii kenn ku nekk jàpp jàpp na ñoom ñaar ñi kenn ku nekk sëñ Moustapha Fall Badi Kara amoon taale mu nekk ba yebal na la nga ba nga taxaw ba kon loolu jàpp na la jàpp na baay daan kon yaakaar naa loolu moom képp ku képp ku yaakaar sëñ Moussa Badi Gara xam nga ne sëñ bi mi ngi jàppale ci loolu ndax daaw jéeg dama dama moo fàttewul dama toog a jox ba yàgg ñu ànd ñoom ñaari dëkk bi sëñ bi yebal andi leen kat addi yi daa ne ah bii de jàpp na la ci Baye Dame ndax yaakaar naa ne bu fekkee ne ma ne daa toogoon toogaay ñoom doog muy toogaat sëñ Moussa Badi Gara te bëggul nag kami xam ko day nëbb loolu waaye bi ñu demee ba liggéeyal yàlla ba ñëwaat ci loxoom dafa fexe ba maanaam mu yebal leen ci ba ba seen nga xam man loolu lu ma lu ma lu ma dina saabu saabu la kon sëriñ bi jërëjëf mu saabu bari kal dafa wax du ma sant kenn lu mënut lu ma sant nit xam naan man na ko loolu moom wax si Moustapha Bari Garan te tan yàgg toog fekke paaram yàgg mu di ko kon li ñuy ñaan rek mooy sëñ Cheikh Ndigal Moustapha Fall mii yàlla na yàgg suñu kanam ak rakkam yi ak mboolem yi ak képp ko mën a doon nga ko ko ci barke sëñ Cheikh Fall Baye Góor ñu ngi koy ñaanal mbokk ak wér ah jataay bi lii mënu cee ñàkk ndax doomi mbër day nuru mbër lu xam ni mbëray baayam Cheikh Moussa Fall sa waajur bu baax wa day ni la taxawoo woon magam ju baax ji ni ko dann nangu naa ku ko mag ci yoon yi waaye nangu ma woon ci gën ndax mbooloo sax suy jógee kër Cheikh Rafal ba mu jógee kër Serigne Touba kenn mënu ko ca ku jëf lu kenn jëful nag di am lu kenn amul bàyyi ndigal ma dëggan dafa yow mu jiwoo ko mu réer ndax dan naan diw baax na buñ ko waxee ndax bokk yaa ko wax ñu ne kala gën kala kooku moo la gën ñett yi la sa waajuru yëpp ñett yooyu yëpp yaa koy doxal kenn ku ne teg na sa bët Cheikh Moussa mu baax ma ba muy dem bàyyi na laak yoon wi bàyyi laak taalibe bi yii toog waaye laaj mbokk yi nga xam ne ñoom nga bokkal si الحبس والسفر